Hubert Mbengue euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Hubert nga nekk journaliste et sportif euh, déjà ma lay laaj si naka nga gisee organisation wu Coupe d'Afrique des Nations deux mille vingt quatre par la Côte d'Ivoire naka nga ko gisee. waaw man euh, ni ma ko gisee mooy am naa si xel bu dal parce que li ma gis si infrastructure yi. muy stade yi muy hôtel yi muy tout ce qui est infrastructure je crois que Euh, Côte d'Ivoire euh, def na daal euh, lu xaw dal xel bu ñu jàppee par exemple lu Sénégal bi nekk Yamoussoukro stade bi muy Charles Konambani stade bu mucc ayib la ba pare équipe yi ni ñu logé vraiment baax na Sénégal par exemple mu ngi logé hôtel président et hôtel boobu d'ailleurs moom ak Cameroun ñoo fa nekk mais ni ñu loger baax na terrain d'entraînement bi aussi baax na te loolu mooy ñetti facteurs yi yi ñuy demander évidemment terrain yi nañ baax pelouse yi baax spectateurs yi mën a dugg également de manière confortable installé wu seetaan te loolu yëpp je crois que euh, daje na actuellement en Côte d'Ivoire Mhm. Euh, léegi aussi ñu taxaw si yow si sa sa jàngat sa gis-gis euh, en tant que journaliste sportif yan euh, équipe la ñu mën a jàppee comme favori ci CAN 2024 waaw favori yi moom ki ma jiital mooy Maroc Maroc parce que bon demi-finale coupe du monde la jóge coupe du monde au coupe du monde bi ba pare Maroc mooy nekk euh, premier ci classement FIFA euh, en Afrique euh, donc euh, naturellement dañuy citer Maroc mais euh, toftal ci Sénégal Sénégal parce que mooy champion d'Afrique mais aussi parce que mooy nekk deuxième classement FIFA aussi en Afrique bon troisième position ban Côte d'Ivoire laa parce que bon déjà que am nañu équipe mais aussi ils sont à domicile. Euh, donc euh, ils auront le soutien de leur équipe c'est de leur de leur public euh, donc ñoom loolu atu nekk ci ñoom maintenant am na syndrome bu ñuy wax très souvent mooy que ne Afrique noire mooy Afrique subsaharienne benn équipe rek moo fi mës a organisé ba pare ko mooy Afrique du Sud en 1996 donc loolu booy xool du statistique bu dal xel pour Côte d'Ivoire mais buñ ko jàngatee Euh, seen pression publique bi nekk pression bu positive xam naa ne war nañ ci mën a génne ñooñu nag dañ mën nañ ci citer yeneen équipe parmi les favoris euh, disons ñu teg leen comme ay outsider euh, mën nañ ci def Égypte mën nañ ci def Nigéria mën nañ ci def Algérie mën nañ ci def sax Mali waaw mais man pour man Cameroun bokkul léegi euh, Sénégal nekk champion à titre ñëw ci kaan bi euh, yan défi lan moo koy xaar bët bu ñu war a xoolee équipe nationale du Sénégal ci CAN deux mille vingt quatre bi. waaw liñ si liñ mën a xaar si Sénégal parce que mooy champion d'Afrique mooy mu conserver titre bi Sénégal koo fi laaj loolu lay wax joueurs yi aussi xam nañ ne. ku gagné kan mun loo mun loo mun loo euh, espérer leneen lu dul conserver gagnéwaat ko bon donc loolu mooy euh, challenge bi loolu challenge bu bu xaw a jafe la parce que euh, wax nga ko sànq si nasaraan li ñuy wax malédiction di champion en daf fi am ñetti ñetti équipe rek ñetti pays ñoo fa mës a gagné ba pare conserver ko muy Ghana ak Cameroun ak Égypte Égypte sax d'ailleurs def na exploit parce que conservé na ko deux fois mu ngi ko gagné en 2006 en 2008 ak 2010 euh, Cameroun mu ngi ko gagné en 2000 ak 2002 2000 2002 d'ailleurs contre le Sénégal au tir bi but maintenant loolu défi la parce que boo xool très souvent champion en titre yi dañuy am d'énormes difficultés pour mën a exister pour mën a sax kenn seen poule loolu moo dal Algérie euh, au Cameroun la dernière fois premier tour la toog dans une poule boo xam ne ay Sierra Leone ak yooyu ñoo si nekkoon donc euh, loolu mais quand même Sénégal mën na ko éviter parce que déjà tout le monde en est conscient muy joueurs yi muy staff yi euh, ñoom ñëpp ils sont conscients de de cette situation que am na luy expliquer lu tax champion en titre yi di am ay difficultés difficultés yooyu nag buñ ko jàngatee war nañ ko mën a éviter pour génn si poule euh, groupe C nekk. Mhm. tey jii Hubert Mbengue boo doon xool euh, état sportifu Lions yi maanaam seeni performance euh, ak au niveau de leur club est-ce que actuellement jàpp nga ni pare nañ vraiment pour la CAN suñ ko comparer ak CAN bi mujj naka nga gisee état sportifu Lions yi. waaw man awma si Euh, inquiétude ñu bëri doon nañu wax ni euh, par exemple suñu joueurs yi yenn cadres yi li ñu dem Arabie Saoudite euh, mën na leen wàññi évidemment championnat Arabie Saoudite bien que am na ay stars amul niveau wu championnat européen yi mais quand même suñu joueurs yi je crois que actuellement ils sont compétitifs muy Sadio Mané muy Edouard Mendy di di di di di je crois qu'aujourd'hui ils sont assez compétitifs li ñuy wone euh, dal dal na xel euh, ku mel ni saajo par exemple euh, bien que bon ñu xaar mu nekk Sadio bi ne woon Liverpool bi bootoon équipe bi en deux mille vingt deux je crois que ba léegi mën na nekk il reste le leader et que war na mën a porter équipe bi ba léegi donc à côté de ces joueurs la am na ay jeunes yu révélé wu mën nañ ci citer Pape Matar Sarr compét euh, performance yi muy def en première ligue avec Tottenham ay performance yu mucc ayib la man cité aussi euh, Lamine Camara euh, qui est à en Ligue 1 française ba pare CAF Awards yi mu gagné titre meilleur jeune joueur africain donc loolu mën nañ cité aussi ay Iliman Ndiaye qui va découvrir la CAN wala aussi Ismaël Jacobs qui va découvrir la CAN wala aussi Nicolas Jackson ñooñu ñëpp c'est des joueurs yoo xam ne actuellement ils sont en jambes avec leur club donc de manière générale euh, jour yi si ñi si ëpp daal ossature bi euh, je crois que c'est des joueurs yoo xam ne ils sont compétitifs li ñu wone ci seen club yi mom dal dal na xel. dal na xel euh, coaching Aliou Cissé bi nag loo siy xaar Hubert Meng fan la Aliou war a génne exactement mën a relever le le défi encore. waaw euh, Alioune moi je pense que fi mu toll nii mën nañ jàpp ne équipe yi nekk daje foofu yëpp muy entraîneur yi ak staff amul ku si gën a outillé ak aujourd'hui ku si gën a xam kan parce que daf ko pratiquer dafa participer à la CAN en tant que joueur capitaine de de l'équipe du Sénégal ba pare tegle bi mooy nekk quatrième kanam en en tant qu'entraîneur mu joué déjà deux finales gagné benn. Euh, toog en bon premier essayam dafa toogoon en quart de finale mais là on a euh, euh, un entraîneur boo xam ne vraiment am na expérience bu kan solide expérience bu kan donc war na mën a am vraiment système de jeu boo xam ne je crois que war na si mën génne aujourd'hui am na équipe am dans son effectif am na fa expérience am na fa jeunesse également bon maintenant bu ñu seetaanee dernier match bi contre le Niger bi xam ne dañ ko gagné très difficilement en amical fii à Diamniadio mën ñu am quelques craintes peut-être par rapport à au jeu produit par par l'équipe mais man dama jàpp ne Alioune da doon caché jeu am ah, donc c'est pourquoi mu mu reposer ay cadre am aligné ay euh, joueurs yoo xam ne jox leen ay temps de jeu euh, joueurs yoo xam ne doon ñu woon jouer très souvent mais xam na ne jour boobu euh, adversaires yi ñu doon superviser donc da doon caché son jeu mais je crois que euh, l'équipe nationale euh, a c'est-à-dire type buñ ko buñ ko mettre en place je crois que nañ nañ jox satisfaction mm-hmm. Est-ce que mën nañu wax aussi dernière question Hubert Mbengue euh, poulu euh, bi nga xam ni Sénégal si la bokk poul bu yomb la wala bu difficile la yow si sa gis-gis waaw suñu groupe bi moom groupe bu difficile la groupe C bi ñu defee tirage bi observateur yëpp experts yeeg ñëpp dañ ko désigner comme euh, groupe groupe de la mort parce que comme ni mu composé la dañu fa am Sénégal champion d'Afrique am fa Cameroun euh, deuxième nation la plus titre oui. euh, en Afrique derrière l'Égypte boo génnee Égypte avec ses sept titres Cameroun nga si teg avec ses cinq titres donc déjà ñaari équipes yooyu bu ñu dajee rek day difficile léegi ñu tottal si Gambie ak Guinée mu nekk deux pays yoo xam ne suñuy voisins lañ euh, Gambie euh, dernière fois demoon en quart de finale mooy première participation Coupe d'Afrique bi passé euh, mu dellu si Guinée aussi xam nañ chaque fois bu dëjëk Sénégal donc équipe bu super motivé lay doon. Mm. c' est vrai que Guinée bon mosuñu euh, am difficulté ak moom si Coupe d' Afrique mosuñu perdre contre la Guinée en Coupe d' Afrique Gambie moom c' la première fois ñuy daje moom donc euh, ñetti match la yoo xam ne ce seront des matchs très difficile ñaari derby la ñuy am contre Guinée ak contre la Gambie ba pare am un classique euh, classique bi mooy contre le Cameroun. bon c'est vrai que Cameroun euh, cette année équipe bon c'est pas tellement ça mais euh, Cameroun yi très souvent ay compétiteurs la ñuy doon ah donc ils ont en 2017 par exemple kenn xaaru leen woon ñu ñëw gagné coupe bi euh, génn Sénégal sax au tir au mais euh, cette fois-ci nañu am un peu un ascendant psychologique ci ñoom parce que ñoo leen dóor euh, récemment door nañu leen en amical euh, en septembre dernier à lance donc groupe bu difficile la mais Sénégal war na si mën génne allah. Mhm. kon euh, euh, Hubert Mbengue ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf. voilà Hubert Mbengue ñuy fàttali ni journaliste sportif nga en tout cas merci pour la disponibilité jërëjëf. disponibilité jërëjëf.